is taking over all the world. asalaamaaleykum mbokku auditeurs yi ñu leen di nuyu ci 93 point 0 Afia FM ci kàddu gi Yvette Betty Mendikor ci xarale gi Adji May Diagne Balde di leen ne dal leen jàmm ci seen émission institut Panos ci lëkkaloom ak rajo Afia FM ci seen programme bi di forme femme occuper les médias euh, ci programme bi nga xam ne rek euh, tëral nañ ko ngir waxtaanee rek ani yan la jigéen ñi di daj rawatina ci waxtu mbas mi nga xam ne rek ku nekk yaa ngi jéem a fagaru waaye itam mbas mi indi na fi ay loraange yi nga xam ne. amaana am na yenn yi mu fi fekkoon am na yenn yi nga xam ne yokk na ko yeneen yi gën na ko euh, taxal li ni mel la ñuy tey duñ ci wéet benn yoon nag nuñ koy defee chaque édition dañuy daal di am invité rek laata ñoo waxtaan ak invité bi wala di ko bàyyi muy nuyu dañuy déglu magazine bi ba noppi soogay jàll ci li nga xam ne rek mooy euh, émission bi euh, proprement di nee naa leen institut Panos la ci lëkkaloom rek ak Afia FM waaye itam ci URAC mi réunion des radios communautaires ngir waxtaanee rek euh, violence yi nga xam ne jigéen yaa ngi koy dund wala métisal yi nga xam ne euh, jigéen yaa ngi koy euh, dund te dara waralu ko rek lu dul mbas mi naam sax am na yenn métisal yi nga xam ne ñu ngi ko doon dund laata mbas mi waaye rek ba mbas mi dikkee ba tey am na yi nga xam ne da leen a gën a taral ndax am na ci ay conditions yi nga xam ne rek moom la ñuy dundee léegi wala bokk moo xam ci biir kër yi wala seen wàllu wérgu ci seen wàllu xëy ndax kat tey dinañu waxtaane lu am solo lu ci mel ni rek njeexitalu mbas mi euh, ci jigéen ñi rawatina ci métital yi nga xam ne rek ñu ngi leen koy euh, teg euh, ki leen ko teg nag bokk na ci seen borom kër wala boog dëkkuwaay bi waaye itam bokk na ci xëy bi nga xam ne amaana ñu ngi ko doon def di ci mën a suturloo di ci mën a dimbali seen borom kër waaye itam di ci mën rek def la war ca biir njaboot bi mbas mi bi mu dikkee nag ñu bari danoo ñàkk boobule xëy tey ji yenn njeexital la li ni eh, indil leen seen wàllu xel wala seen wàllu wér-gu-yaram ba ci seen wàllu sax gafaka doon na mbir mi nga xam ne dafa doy waar ni ma leen koy waxee rek dañ koy door rek magazine bi nga xam ne def nañ ko ngir eh, saytu ak nemmeeku yenn ci ay métital yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy daj ngir mën a dellu si waat dalal suñu invité waaye itam amal ci waxtaan bu yaa ñu déglu magasin bi dellu si waat rajo Afia FM ci lëkkaloom ak URAC ak Institut Panos ñoo leen di may biile magazine jëm ci mbas mi di Covid 19 ak njeexital ju jural soxna yi jëm ci fitna bu ñu jànkonteel ci seen wàllum koom ak itam ay jafe-jafe yu ñu dund ci seen biir kër yi Yvette Betty Mendikor ngeen di ci àndal mbas fii ci sunum réew bés bu yàlla jàngoro bi di gën di jëf ay jéego ca waxtu woowee mu gàllankoor dem beeg dikk bi saafonte bi dem sax ba naax saayal yenn ci ay xëy ci yooyu li jafe-jafe nag jigéen ñi ràññeeku nañ ci bu baax ndax kat gafaka yi rës nañu eh, ci biir kër yi eh, jigéen ñi nara sàmm seen njaboot ndax lekkool bi ñu tëj mottali njël eh, di leen xaar boole ko nag ak dékku yenn ci ay jikko seeni borom kër ginnaaw ba confinement bi taxee rek ni waxtu yi ñuy daje ci biir kër yi daal day yokk bu baax lii lee lépp tax ay jigéen di daj ay métital yu metti bu ñii seen borom kër leen ko teg ñeneen ñi amaan ñi ñu doon liggéeyal ñoo leen ko teg mu doon nag ay fitna ci seen wàllum yorin seen wàllum xel ba ci sax seen wàllum koom bile magasin nag dina fësal yile métital naam yu ci bëri amoon na fii ci réew mi waaye mbas mi yokk na leen lool mbas mi daal di indi ay njeexital yu bëri ci jigéen ñi rawatina ñi doon yëngu ci njaay meeg njënd mi ci yenn bëre bi mënatuñ ko def lekkool yi tëj nag tax gone yi daal day daje ci biir kër gi teg leen gët sàmm leen aar leen doon li jafe ci yenn ci way jur yi nga xam ne ñu ngi xëy ba tey loolee lépp jur ab tiitaange ci seen biir njaboot indi réeroo seen digganteeg seeni càmmooñ ndax bët gi ñuy teg seeni doom waaye itam koom gi demeetul noonu ngir rek ñu mën a faj seeni soxla ak soxlay njaboot gi ñu teewlu ci biir reportage bu Aji May Diagne Balde. mbas mi bu fekkee ni am na ñu mu laal bokk na ci jigéen ñuy xëy di daani seen doole Elisabeth ab jaaykatu ndekki la day xëy suba ba ngoon te du jaay dara. naa ne daal moom jaay bi moom demeetul noonu de parce que dangay ubbi ba ngoon jot doo gis ku la ne sax jaay ma lii dafa métti moom tar na torop suñu côté fépp la laal bàyyiwul loo xëy di ci daan ça defoo leneen. école bu tëj liggéey bu wàññeeku tax ba jot am mën a indi nag daje góor ak jigéen te ku wax daje wax ñaawteef yu mu mën a jural xale yu jigéen ñi bi la yaay nag di ko ñaawlu. doxaan gi rek indi na problème ci dëkk bi fi toll ko am njaboot sa fi dootul dal te ngi ci marché bi di liggéey xale yu góor yi nekk suñu kër yi doxaan guddi doxaan ba cëg doxaan gi la ñuy ba nan toog doxaan gi. ngir lépp dellu fa mu nekkoon wéy jur bu jigéen bi di ñaan mbas fi ba faw ba ku ñi ngi ñaan feebar bi balaa bi yàlla teggil ñu ko ñëpp delluwaat seen activité li am ba des mooy mbas mi laal na li nga xam ne nag moo di koom bi ba tax na nag ñi nga xam ne ñoo di jaaykat yi nag jafe-jafe yu métti la ñuy jànkonteel ba tax nag lu ñuy sàkku rek mooy bi la mbas nag jóg fii ba faw ba rekku ci nekk nag mën a wéyal li nga xam ne moo jëm ci say activité njeexitalu mbas mi eh, ci fitna eh, ji mu mën a jural soxna yi eh, ci seen wàllum koom ak jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci seen biir kër bari na lool ba tax na mën nañ ci liim ay wujj yu jàppante wala borom kër bu teg loxo soxnaam soxna si nga xam ne cin li bu tegoo daa xëy daan dooleem ba ñëw njaboot bi jàngeetuñu ku nekk ci ñoom ñu war leen a teggat sàmm leen aar leen lépp nag tegoo ca ndoddu jigéen ña ngir nag indi dal ci biir kër yi ak jàppale jigéen ñi ci bépp jafe-jafe bi leen mbas mi indil Ngoné Pouy di ab bàjjanu gox li ci indi ay leeral ñu teewlu ko. jigéen ñu bari dinañu xeex gaañante ndax suñu poste de santé sax des nga yóbbu fa ni dox violation tam dina am ñoo xamante ne dañoo xuloo xuloo bu métti ba nga gis ñu génnee seen i bagage pour dem loolu yëpp waxtaan ñaax sama moroom jigéen ñaax sama moroom doom yi ak sama naw yi ne fenn neexul fépp a yem fenn neexul wax yàlla bu dee juróomi kaa sax am na fi ñoo xam ne gaañu nañ ci say xeex ba yóbbu leen ñu faj bu dee juróomi kaa li ci des nag ay xeex la rek xeex nag mën na am gàcce mën na am màtt mën na am lu dekk ñu ju xeex ñu atte leen arrangé leen ñu toog te arrangement bi nag aussi tuuti lu mu tuuti tuuti tuuti sax mën faa toog jàppale loolu te jéem uti lu mu def te heure bii fu mu nekk nii kenn amul loo def kenn amul loo jaay fenn amoo fenn foo jaar ndëgëm ñuy sëy ñoo ko mënul am masanaa ñu ci lekk ndax li lay dal sa biir kër mooy dal keneen ci biir këram kër yëpp ko yem ne kër yëpp ko yem yàlla daal ci sutura daal la ñuy dox au moins weer bi waa àtte naa fi juróomi xeex yoo xamante ne sax dañu gaañal mbas mi wéy di jur ay jafe-jafe mu mel ni rek jigéen yee ci gën a loru rawatina jànq yi nga xam ni seen patron yi dañ leen a bàyyi ci wàllu woowee sax rajo Afia FM ba ñu mbas mi ganesee ba tey muy wéy di amal ay émission duppee ko nag ànd xeex mbas mi ci loole ay Aïcha Bagay ko ceeg seenu Thiam ma ñu teewaloon ca buntu Pikine fekk fa lii mu jigéen yu takku ñëpp doon ay jànq yi nga xam ne seeni patron dañ leen bàyyi ñu war dellu nag Eh, seeni dëkk eh, jafe-jafe bi ñuy jànkonteel bokk na rek ci ñàkk am fi ñu dëkk fii ci ndakaaru eh, koom gi leen yor bu ñu liggéeyut waaye bëgg na a diis mooy oto bi leen di di yóbbu ci seeni dëkk ginnaaw ba njiitu réew mi dàqalee transport interurbain ñu teew lu leen. waaw yaa ngi foofu ci buntu Pikine. waaw maa ngi fii ci buntu Pikine. ay mhm. sa fii ci buntu Pikine nag li fi xew. yéeme na yéeme na lool parce que liñ doon bañ ci wàllu dajaloo daanaka mun nañu wax ni moom moo fi am. ndax boo xoolee ñu ëpp ci euh, maanaam ñi nga xamante ni ñooy miin a daan seen doole ñoom dañ fee nekk ndax ba tax na ñu bari dañ doon liggéey ci kër yi mais nee nañ seen patron yi dañ leen a wax ni nañu bàyyi dem bi ak dikk bi ñoom nag nee nañ liñ jot a am akus néew duñ ko toog fii di ko fi lekk xamuñu kañ lay yem lii leen ñu am jeex ñu duñu mën a am lu ñu mën a lekk ñu bëgg nag ñibbi seen i kër ba tax na gis nañ fi ñoo xamante ni démb ñëwoon nañ depuis sept heures lañ fi ñëwoon euh, ba léegi Euh, si sept heures démb ñu bi tey it nee nañ sept heures lañ fi ñëwoon ñoo ngi fii nag xam naa dañuy ànd ak kenn rek soxna si noo tudd. man Ndeye Awa Mbaye laa tudd. Ndeye Awa lan moo waral nga ñëw nii. ñun ñii daal dañoo xëy. xam nga feebar bi moom ñëpp a xam ne feebar bi bëri na si dëkk bi suñu patron yi nee nañ ñu carrément nañ arrêté parce dem ak dikk bi moo dansé na daal xam nga wóoru ñun tam ñu arrêté. ñun tam ñuy bañ a toog fii di lekk li nga xam ne jot nañ ñu ko fay ñu ne dañuy ñibbi dëkk ba mais pour ñu ñibbi rek problème la démb fii la ñu yendu boo ay ay cinq heures la ñibbi tayaat ñu xëyaat six heures du matin lañ jóge suñu kër yi ba tey jii ñu ngi fi amaguñu oto te dajaloo bi lañ doon bañ te ñu ngi nii dajaloo fii lu nekk mën na fee xew waaw ñu ngi nii dajaloo fii oto bu ñëwee ñu njëkkante njëkkante boobu lu nekk mën na fee xew njëkkante boobu sax lu tax période bii période bii dañoo wax ni oto warul dem warul dikk ndax est am na oto yuy dem ak dikk yoo xamante ni ñu ngi dem ci région yi benn oto demul benn oto dikkul instant yi oto yi jam ñaajo la ñuy yem buñ demee ba jam ñaajo ñu retul ne leen ba pare ñoo ñoo ngi foofu di sonn ndax dañ leen faa wàccee lekkuñu naanuñu ñu ngi foofu di sonn ñun tamit aussi ñu ngi fii di sonn buñ demee suñu kër yi duñ lekk duñ naan fii tam duñ lekk duñ naan nañ ñu bàyyi ngir yàlla nañ ñu bàyyi ngir yàlla paas sax amatuñu ko dañoo paas dem dikk ba sonn nañ ñu bàyyi ngir yàlla ñu ñibbi suñu dëkk yi nañ ñu bàyyi ñu ñibbi donte dañ ñuy testé sax ñu testé ñu bu ñu amul ñu ñibbi bu ñu amee ñu testé nañ ñu ñëw testé ñu ñu ñibbi ñu am toog ñu amul dem ñibbi moo gën lii moom metti na torop metti na ba ci kanamu yàlla. waaw Macky Sall nañu jàppale ngir yàlla ak yonentam bàyyi ñu ñu ñibbi. njiitu réew mi dafa jël dogal ne transport interurbain bi dañ koo dakkal ñoom xanaa xamuñu woon ne dem beeg dikk bii dañ koo arrêté. waaw ñoom ñu ne waxoon nañ leen ko ni dem ak dikk waaye ñoom amuñu pexe ndax seeni dañoo bàyyi ba ñu arrêté dem bi ak dikk bi ñu door leen wax toog leen seen kër kon mais fa ñoom ñu ñibbi ci seen i ndax seeni i famille ñu leen di woo ñu ñëw et puis ñoom li ñu am bariwul ndax lu ñu mësaan fa yeeku weer dañ koy yóbbante seeni i kër léegi ban solution la ñu am mooy li nga xamante ni arrêté wuñu woon dem ak dikk bi dañ doon lekk seen kër patron yi mhm. di fa tëdd euh, féete fa léegi nag bu leen waxee dem leen ngeen toog seen kër ñoom amuñu fu ñu jëm léegi ñu mën a def mooy ñibbi seen dëkk yi nga xamante ni mooy seen dëkk cosaan mën fa toog loolu moom mooy problème bi nga xamante ni moom moo posé fii ci buñ Pikine xeex wàllante bi fexe ba dàkkal feebar bi wala boog bañ rek doon ab bunt bi nga xam ni bile jàngoro dina jaax ci ñun ngir mën a wàll ñeneen ñi patron yu bëri nag jël seen matukaay bokk na rek ci bàyyi seeni jànq ñu bañ di xëy seeti ñu daal di àngu seen liggéeyu bopp boole kook seen liggéeyu kër ñeneen ñi moom ñu ngeeg seeni jànq ba tey waaye eh, jéem na noo jël seeni matukaay ngir ñu saafonte ak a sàmm lu ñu waa kër docteur di digtal bii la situation nag jur ab métit ndax kat jànq yu ñu bàyyi amatuñu payoor ñaleen doon jël liggéey gi mujj bari seeni loxo lii lee jur beneen métital ci wàllum koom waaye itam ci wàllum xel rawatina ci jànq yooyu lee ba tax na Fatou Ndiaye amal na waxtaan ak yenn ci ay patron yi nga xam ne ku ci nekk ci ñoom am na plan gi mu tëral ngir xeex mbas mi waaye itam aar jànqam ak njabootam soxna Rachel ak contexte bi nga xam ne moo di Covid 19 bi ñu gis ne ñu bëri dañu bàyyi seen jànq yi leen doon liggéeyal si biir kër yi ci wàllu wow ndax yow sa jànq bi lay liggéeyal da nga ko bàyyi muy continuer liggéey bi wala da nga ko dakkal. man sama bon nag libéré ma ko parce que ci koñ bi la dëkk mais damay def tey bu liggéeyee tey suba mu noppalu léeg nag mu ñëw am jour yoo xam ne day ñëw comme par exemple su ma occupé nii wala liggéey bi bari mu ñëw mais su ma amee temps libre moom dama ko naan ma toog kër ga man dinaa togg jumtukaay yi ci war ay masque ak yooyu yëpp jox naa ko mais man ak moom soriante wuñu te tamit xamal na ma euh, ñu gis ne jànq yu bëri dañuy arrêté liggéey bi jànq ndax mu ngi wéy di liggéeyam déet wala dafa arrêté li nga xam ne moo di liggéey bi mu doon liggéey ci kër pour éviter li nga xam ne moo di contamination man maintenir uma ko parce que tout simplement dafa doon jóge Padois di ñëw chaque jour di liggéey si dama ko doon jox paas muy xëy si di wàcc donc compte tenu de tout ça pour protéger ko moo tax ma ne ko na toog ba yëf yi passé parce que bi ma koy arrêté sax boobu weer bi demagul woon fenn mais man maa ko arrêté mais bi fin du mois jotee tout son mois. ginnaaw ba nga ko arrêté eh, yan disposition nga jël ngir fay ko ndax lu ni mel mën na gàllankoor li nga xam ne moo di wàllu liggéeyam waaye it koom-koom bi nga xam ne doon na ko am weer wu nekk. waaw mois yi di ñëw xam nga fu mu toll nii weeru koor lañ nekk dinaa ko jox suukaru koor yeneen mois yi di ñëw seet loo xamante moom laa koy jox d'ailleurs looloo xamante ne kii sax mu ngi ca koñ ba parce que tamit sama xol mayu sax muy dégg ne jël naa keneen donc man maay def su ma wàccee rek gérer donc euh, may ñaan yàlla yëf yi gaaw a jeex ndax ma jëlaat ko incha allah ndax situation sociale moo taxoon ma jël ko mais aussi je crois que bu situation santé teewee il faut ko ñu protéger ko aussi. waa ñu gis ne jamono ji ñu bëri ñu ngi ñàkk seen liggéey ci li nga xam ne moo di euh, Covid 19 bi euh, ndax yow am na benn matuwaay boo jël ngir suivi psychologique bi nga xam ne moo ci war ndax boo xëyee tànne nga ne ko mu dakkal liggéeyam euh, ndax loolu du indi gàllankoor ci wàllum xel ak ci wàllum jëfin. waa xam nga yàlla mu ngi def euh, man je suis assistante sociale benn je suis aussi psychothérapeute donc je l'ai vraiment préparé parce que aussi gis nga sooy bàyyi nit doo ko defee brusquement da nga koy préparé te je crois que elle fait partie des gens yoo xamante ni ñoom ñu teel am ay information la par rapport ak feebar bi parce que à chaque fois dama doon wax ak moom à chaque fois ko ci doon euh, renforcer ba sax dafa ne man sax loolu xalaat naa ko ma ne ko parce que yéeg beeg wàcc bi ngay def ci rapide yi ba pare fu toll nii xamuloo kan mooy kan ma ne ko man xam naa nu mooy protégé woo mais yow ci sa bopp aaru woo d'autant plus que yaa ngi am sa kër xale boo xamante ne daf lay jàppale donc il faut nga toog bu yëf yi passé incha allah sa place mi ngi fi demul fenn métital yi ñu lim lépp nag mu am ay njeexital yu bari ci jigéen ñi mbas mi fi jaar lawal yenn métital yi yeneen ñi mu yokk ko ba mu sës lépp rekk jigéen ñi daal di koy dékku soxla wàllu amaana gisuñu ko li waral bii le phénomène nag fi ñu jëm ak itam nan la ñuy def rekk ba dund ak mbas mi naam waaye jëlee fii le métital yuy teg jigéen ñi waxtaan bi yaa bi ñuy amal ak sociologue bii di Abdou Khadre ñu teewlu ko jamono yi aussi dafa nekk jamono yu jafe yoo xam ni xat-xat yi dafa bëri ndax le fait que xëy na comme on dit koom fa bokk ci loo xam ne day contribuer ci matal nit alors malheureusement Covid bi ak contexte bi ni mu demee dafa bëri xëy na seen liggéey demeetul noonu seen loxo jotutul seen ginnaaw alors am na jigéen yu bëri ñoo xam ne aussi génnatuñu donc. jege wanto bi ak gisante bi day bëri tellement que euh, li nga xam ne ni moom mooy frustration bi juddoo ci le fait que nit ñi liggéeyatuñu amatuñu weccet buñ def seen poche amatuñu lu ñu régler seen soxla donc facilement day am euh, de l' électricité dans l'air qui peut déborder e rax ci dool yi aussi ñëpp xam nañ ko tey secteur informel bi li ci ëpp ay jigéen ñoo ko ŋànk donc su demee ba li nga xam ne ni manqué woon na ñoom ñoo koy mottali li nga xam ni matul woon lu bëri ci kër gi ñoom ñoo koy indi di ko taqale ba kenn du gis jafe-jafe yi donc xëy na ñoom suñ ko defatul tant que ñu ngi ko doon def dañ leen di wax a baax yéen a gore mais comme Covid bi dafa aussi poussé activité yëpp aussi ñuy ralentiru donc loolu day aussi benn sorte de sippi mer boo xam ne ni góor ñi dañuy am tendance di ko sippi ko sippi ñi parce que c'est pas pour euh, généraliser mais ñëpp xam ne dafa am façon góor yoo xam ne ni bon mun nañ nekk ak yow ñoom li ñu war def ci kër gi yow yaa koy mottali su boobaa mun nañ gëmm seen bët ci lu bëri mais su demee ba loolu commencé feeñ parce que am na jigéen ñoo xam ne sax dañ dem ba non seulement dañuy yore kër gi mais dañuy yor seen jëkkër cigarette ñoom koy jox yenn argent de poche yi ñoo leen koy jox yenn passe ñoo koy jox donc am benn sorte de sipi mère xam ne dañ leen koy sipi buy dégénère loolu yëpp nag day wane rek effectivement euh, bi ñu nekk surtout Sénégal mesure où ñëpp xam nañ ni seen gëdd ak seen cër ni ñu leen ko war a joxe joxe wuñ leen ko noonu euh, te ñuy bëri ci ñoom aussi xamuñu euh, ban yoon la ñuy aw pour mën a protéger seen bopp ba loolu ñu mun ci génn donc yooyu daal euh, généralement aussi le fait que espace bi xam nga dañuy wax ne couple routine baaxu ci routine mooy loo koo xam ne da ngay xëy di ko gis voilà am benn borom xam-xam bu mag buñ doon wax Corneille daf doon faral di lépp naan faites-vous rare et l'on vous donc peut-être miineel boobu chaque jour boo xëyee di gis sa jabar wala ngay gis sa gis sa jabar gis c'est donc bokk na ci li gën taal coow surtout que yéen ñëpp euh, koom bi demeetul noonu euh, ku ne sa poos xaw na rës donc lu leen merloo dafay xaw a yomb alors que bokkul ak woon nag ba nga xam ni da liggéey sa jëkkër liggéey ku ne namm sa morom su ngeen ñëwee ku ne sangu ba set ngeen taal ataay toog seen salon kii taal cuuraay ngeen di taat loolu yëpp nag léegi dafa amatul parce que sax reste à voir est-ce que njëgu attaay bi ñu war a ñu war a jënd est-ce que euh, añ bi ñu war a taal sax lépp nekk na fa donc loolu yëpp rax ci dolli xale yi ngeen war a gérer nekk ci biir kër gi buñ daan dem école wala alxuraan ba euh, xëy na pression boobu doon na la gën a wàcc mais léegi yooyu yëpp bëgg a gérer njaboot gi bëgg a gérer soxna si bëgg a gérer sëñ bi donc bopp bu dalul euh, ce qu'on appelle avoir la tête sur les épaules soo ko amul soo amul benn certain équilibre tu peux aussi tomber ci travers ou généralement c'est vrai qu'on le dise tout raison mooy góor ñu mooy tontu bi dafay bëri aussi ci femmes yi reproche yi mun na bëri eh, comme am na góor ñoo xam ne ils n'ont rien compris ñoom jàpp nañu bu leen dara méttee rek xëy na violence moo koy donc euh, jàpp naa ne daal euh, contexte de proximité bi ak d'enchevêtrement bi nii nit ñi di frotté woo ci espace euh, aménagé bi nga xam ne nii souvent espace bu exigu la aussi il faut le dire non seulement exigu mooy nekkuñu fa le minimum fretin n'est pas n'est pas couvert les besoins primaires ne sont pas satisfaits donc fond fondamentalement nit ki dañuy wax c'est un l'homme est un animal pensant donc lii pensé ci moom mooy raison beneen bi mooy instinct bi instinct bi nag finalement mooy jël le dessus sur raison bi à tel enseigne euh, donc euh, booy def doo doo xalaat da ngay ni mala buy def dóor saaga gaañ après nag xel bi su ñëwee ci ngay soog regretter peut-être probablement li def mais di appelé waat aussi au sens de la responsabilité quel soit contexte yi euh, nit ñuy wax self contrôle ak sang froid bi mun na am mais na yem ci kàddu euh, bi dans dans le geste dans l'acte maanaam sooy sooy sooy sooy raxas ndab ngay bomb sooy raxas kora ngay warul dem aussi ci violence physique loolu moom il faut dénoncer ça jusqu'à la dernière énergie parce que contexte bi rek dafa métti ci jigéen mbas mi ni mu gàllankooree dem beeg dikk bi saafonte bi atax rekk ñu bëri daldi jël seen matukaay ngir xeex ko ca waxtu woowee jigéen yu bëri ñu ngi dund ay métital yi nga xam ne naam amoon na fi waaye doxalinu mbas mi ak matukaay yi nga xam ne jël nañ ko ngir xeex mbas mi yokk na seen yiile jàngoro mooy ci wàllum koom wàllum xel wàllum wér gu yaram ndax fii ñu toll confinement bi euh, tax na ba ñëpp di daje ci kër yi mbir mi le mën a jur coow lu bëri ci diggante waaye dencante yi waaye itam yenn saa mu indi ay jafe-jafe euh, soxna si ngir mu mën a teg gët doomam bu ne euh, sàmm ko aar ko mottali njël nag doon lu jafe ndax kat xëy yu bëri bi le jàngoro gàllankoor na ko. rajo Afia FM ci lëkkaloo ak urak ak institut Panos ñoo leen di may bii magasin jëm ci mbas mi di Covid 19 ak njeexital ju mu soxna yi jëm ci fitna bu ñu jànkonteel ci seen wàllum koom ak itam ay jafe-jafe yu ñu dund ci seen biir kër yi Yvette Betty Mendikor ngeen di ci àndal. mu doonoon rek magasin bi nga xam ne moom lañ leen doon dëgtal ci métital yi nga xam ne jigéen ñi ñu ngi koy dund euh, ci mbas mi newoon naa leen sànq weetuñu benn yoon ci plateau bi dañ ciy dalal sunu restauratrice mi nga xam ne amaana jàngoro bi wala bokk mbas mi am na fenn fi nga xam ne jaar na ko moom ci wàllu xëyam ak yi mel dañ koy bàyyi rek mu nuyoog mbokk auditeurs yi wax leen moom mooy kan laataa ñoo dugg ci émission bi. salaamaaleykum waa Afia maa ngi nuyu képp ku may déglu rek maa ngi lay nuyu. di nuyu nag euh, fi nga xamante ne foofu laa jógee muy commune Pikine Ouest di nuyu suñu njiit suñu kilifa muy maire bi di Pape Gorgui Ndong ministre maire di ko nuyu di ko jox yéeguwaayam bu baax baax di nuyu suñu présidente des femmes de madame Aïda Sougou di nuyu suñu responsable des jeunes muy madame Aïssatou Dieye Diaby nga xam dañ koy sant di ko gërëm di nuyu jeunesse féminine bi nga xamante ne seen kàddu laa fi ñëwee di nuyu nag restauratrice yi nga xamante ne ñoom laa fi ñëwee seen kàddu fii ci Afia mm-hmm. nga xamante ne maay présidente restauratrice de Pikine Ouest ndax loolu tax ñu woo fii tey maa ngi nuyu ñëpp tur bi mu ngi Tuuti Ba dëkk Pikine Ouest nuyu naa ñëpp daal. képp ku may déglu rek nuyu euh, ñu ngi lay nuyu yow itam euh, madam euh, Ba ci édition bu am solo bi nga xam ne rek dañ koy def rawatina ci wàll mi nga xam ne rek mbas mi lëmbee na réew mi tey itam am na ay njeexital bu baax a baax a baax ci jigéen ñi sànq yaa ngi koy wax ci sa kàddu yow yaa jiite femme restauratrice yi ca gox boobe di Pikine waaye dafa am rek benn mbir mi nga xam ne amaana dañ ko seetlu bu baax a baax bi ñu mbas bi gane see ba tey muy restaurant yu bëri dañu tëjee est ak fu mu toll nii nan ngeen di def wala seen xëy bi yeneen a koy wéyandi ama déet. waaw mooy li nga wax restauratrice bu bëri jaayatuñu commune Pikine Ouest restauratrice bu bëri jaayatuñu wax dëgg yàlla ñu doon jaay ndékki jaayatuñu ñu doon jaay reer jaayatuñu ñu doon jaay añ maximum ñoo siy jaay. parce que li ngay ji togg da ngay togg ba pare nit ki ragal a dugg lekk mooy li ma waxoon keroog rek ñun restauratrice yi lépp suñu kaw la këpp parce que ñun ñooy jaay la ñuy ñëw di fekk suñu place. xamuñu kan moo am xamuñu kan moo amul xamuñu ku feebar xamuñu ku feebaru ñun jaay rek la ñu gis te léeg-léeg ku feebar ñëw dugg ci biir place bi nga war koo tibbal ci bool mu lekk xamoon ndax dafa feebar wala déet bool boobu muy lekkee su fekkee da nga koy raxas raxas ak eau javel jaay keneen xamuñu feebar bi nu mu mel xamuñu feebar bi nu muy doxee léegi sax ñu ngi koy xam parce que suñu médecin yi ñu ngi ñu koy expliquer fi muy jaar ak ni muy jaaree ba dugg ci nit ki moo tax ñun restaurateur lu ñu war a fagaru la ñun bu ñu fagaroo rek feebar bi dootul am doole parce que feer na lépp si ñun la ndax ñun ñooy jox nit ñi ñooy lekk vie wi ñun ñu bëri si ñun la dépendre loolu moo tax. am na solo li nga wax yenn talu leen lu dul jaay amaana nit ki ni mu ñëwee xëy na doo leen si bàyyi xel wala bokk exposé ngeen de telle sorte que seen liggéey moo ko waral sànq yaa ngi koy wax itam sa biir wax restauratrice yu bëri fu mu ne ni tëj nañu seeni i place peut-être ñuy jaay reer ak yi ni mel ñoom ñooy góorgóorlu ba tey euh, tey jii seen liggéey boobu amoon na fenn fi nga xam ne féete na leen ko bu baax a baax moo xam ci njaboot gi moo xam ci biir kër gi tey ngeen xëy rek daal di koy ñàq yan jeexital la am ci seen dund. waa metti metti na ndax ah, ka daan xëy di jaay soo jaayee ndékki ba wàcc wala nga jaay ba 11h nga woo sa doom bu jigéen jox ko ne ko demal marché ñëw ngeen taal ci biir kër gi kenn du la xamal dara su fekkee ne jaayatoo mënatoo jaay gisoo loo jaay gi ragal nañoo dugg ci place yi di lekk ndax feeb bi ma amee man mii di wax yow dama daan jaay ndékki di jaay reer waaye dem naa ba nga xamante ni su ma xëyee ki daan togg ñaari kilo ñebbe di ko ñaari kilo petit di togg di togg dem ba nga xamante ne genn waa liibar ngay togg c'est pas l'appel ngay togg ndax genn wàll bi boo joxee sa waa kër ñu ndékki dootoo jaay nga obligé delluwaat ci biir kër gi toog la nga daan am pour mottali sa njaboot amatoo ko dafa metti ndax ñi doon jaay reer jaayatuñu couvre-feu bi vingt heures la daan am reer beneen nga daan génnee bu ñu jullee tamit sa pare gee nga daan génnee sa reer toog àpp ko fi ba deux heures du matin gisatoo kenn kenn nangu amatul lenn lu muy jënd nit ñi xëyatuñu amuñu xaalis bu ñu jëndee yow muy jaay amatoo dara mu lool nag ci jigéen ñi ci biir kër yi mu lool nag ci ñi nga xamante ndax ko xool jigéen rek xam ne jigéen moo yor kër gaa sunu góor ñi ñu ngi def lu ñu mën waaye jigéen moo yor kër ndax ku la sa góor joxe ñaar téeméer jigéen teg na junni pour dolli ko ci kër gi ndax jigéen li mu mën a lijjanti si góor mënu koo lijjanti ndax góor day xëy rek dem waaye mbas mi dafa ñoo gaañ complètement du restauratrice kese jigéen ñëpp ñiy jaay ci marché bi ñiy jaay feneen ak feneen ñii xëy di liggéey ñëpp la mbas mi laal ñëpp la indil impact mbas mi moom wax dëgg yi yàlla dañuy ñaan suñu borom gaaw ko fee jëlee ba ko si nekk delluwaat si sa activité waaye instant bi moom metti na lool fu metti yem moom metti na fa ñoo ko déggandoo sànq si magasin bi rek am na ñi nga xam ne euh, mbas mi sonal na leen lool bàyyi nañu seen i xëy dellu ci biir kër yi ci biir kër yi itam nemmeeku nañ fa coono ak jafe-jafe yi nga xam ne jigéen ñi war nañ koo dékkuwaat muy l'école tëj na xale yaa ngi ci biir kër yi amaana dépense bi nga doon mottali ñëwatul sax ndax ki ko doon andi moom itam xëy na liggéeyam yàqu na yow mottali mënatul cee fekk ndax sa yàqu na mu doon ay métisal yi nga xam ne jigéen yaa ngi koy dékku te ñoom ñoo yor kër yaa ngi koy wax sànq est-ce que am ngeen ay alternatives yi nga xam ne euh, tax na rek naam métti na mais ba tey yéen a ngi sooxaale xëy na ak leen waaw métti na ñu ngi sooxaale ak lenn parce que euh, ku si mel ni man commune bi ma dëkkee muy commune Pikine Ouest sama maire mu ngi taxaw muy Pape Gorgui Ndong bi affaire bi commencé mbas mii amee commencement wax dëgg yàlla képp kuy relais communautaire kuy bàjjunu gox woo na la conseiller woo na la ci mairie ba. waxtaan ak ñoom ci mbas mi nu ñu ciy demee parce que xam na ni lu jigéen doxul du dem mu jël jigéen nag jox ko ak xam moom góor ngi Ndong woo suñuy yaay woo suñuy bàjjan xamal leen ne mbas mi dafa dugg Sénégal te xamuñu kañ la fiy jóge yéen a mën a fagaru yéen a dugg ci kër yi yéen a gis xale yi yéen a dugg yéen a génn kon yéen a ci mën a waslu ak wax dëgg yàlla nu gox yi liggéey ci liggéey bu rafet commune Pikine Ouest moom Pape Gorgui Ndong mu yëkkati ay moyen teg ci table bi ndax man duma waxal nit nag lu mu defut xëy na ñun metti na suñu waaye moom jàpp na ci ba metteetul parce que nag ku ñëw jox la alalam jox la loo def sa biir kër même bu metti woon sax dootul metti li ñuy wax Pikine solidarité la ñu xam mm-hmm. ñun Pikine solidarité la ñu xam jàppalante la ñu xam mm-hmm. te dañuy jàppalante suñu biir lu ñu am ndax man tey jii du ma dend koo xamante ne jigéen la ma am ñaar téeméer ma xam ne kii dafa na dëpp cën damay jël sama téeméer jox ko ne ko toogal sa njaboot ñu lekk metti na loolu nag buñ gënoon a am tamit renforcement mm-hmm. day baax parce que nag du ñëpp a mën du ñëpp a mën man su ma mënee keneen mënul keneen mënul jigéen ñi ñii dañ doon liggéey yàlla dogal ñu wàñji leen ñi nekk société yi ñu wàññi leen maa ngi déglu mii ne daan doole yi kenn gënu leen a méttile nga doon liggéey ci nit ay weer mu xëy xëy feebar bi am mu ne la arrêté ndax da wàcc da ngay dugg oto da ngay yëg da wàcc métti na moom bu sañoon feebar bi fi dugg léegi nga leen léegi bi ñuy jooy ne ñu ngi ci garage yi ñibbi mm-hmm. mënuñoo dem ñibbi seen kër yi amatuñu lu ñu métti na métti nag ku leen mën a jàppale nañ leen jàppale jàppale leen jigéen ñi jigéen ñi ñu ngi dund dund yu métti di dund ak seen borom kër yi tamit am ñuy dund dund bu métti parce que koo xam ne sa jëkkër daan xëy 7 dem nga xëy 7 dem bala ngeen ne daje si kër gi 8 soo la ñëwee yàkkamte ngaa sangu ba gis ko ngeen toog naan ataaya kafre waaye boo yeen ndoog moom suba ba ngoon jot ci biir kër gi mooy problème ci yendu googu sax la ñuy wax gis nañ ni euh, couvre-feu bi tax na rek ba léegi njaboot gi yëpp ci biir kër gi la ñuy nekk xale yi jàngeetuñu pap yi xëy na liggéey bi demeetul noonu ñu ngi ci kër yi yaay noonu naka noonu ñëpp a ci kër yi te gis nañ ni sunu kër yi souvent comme yaa ngi koy wax sànq solidarité lañ xam teranga lañu xam mm-hmm. lu mu xat-xat-xat sunu mbokk bu bàyyeekoo fenn ci biir kër gi lay nekk mm-hmm. donc jur na yenn situation yi nga xam ne mujj naa metti mm-hmm. parce que ku amul lu mu jox njabootam rawatina beneen jaboot wàllu si ko nekkin bi si kër gi rek yaay bu nekk war a teg gëtam doomam doon na lu metti tey jii lan ngay conseillé jigéen ñi yi nga xam ne xëyatuñu seen jëkkër xëy gi demeegul noonu violence bu métti bi nga xam ne ñu ngi koy daj déjà économique parce que amuñu lu ñu xëyee waaye itam xëy na egg euh, kàddu yu ñagas yu ñuy xaw di dégg ci biir ménage bi ani rek nan nga koo gisee. waaw mooy suñu mbokk jigéen ñi mooy ma leen gën a ñaaxaan ñu gën a muñ te xamante ne góor moom góor la rek góor kàddoom la ci biir këram góor quatre doom la am ci biir këram boo ko xañee quatre doom rek amatul dara ci yow ak lu mu metti metti metti nga yendoog sa jëkkër suba mu ngoon jot muy wax tëjal sa gémmiñ nga noppi soo mënee defal ne ko jox ma bu ne lee aw ma génnal nga sos sa dàll di nga dajeek waaye yàlla ju la dimbali te yàlla tax te du séentu ci yow dara ndax nag dafa metti nga daan dem di am ñaar téeméer di ñëw di def si kër gi mu am ñaat téeméer jox na xëy na ñaar téeméer yooyu amatu ko mënatu koo def moo ko metti ba moo koy énervé ndax da ngay xool boo te gisee sa doom ak sa jabar toog am ñu lu ñu lekk am ñu lu naan wax dëgg yàlla neexul ci xol. munoo dem génn lijjant ji mbarus ngaa dem ñaani sa moroomu góor ne sama waa kër nangam ak nangam kon tey ji xëy na lu tuuti boo ko cofee sax di kaf ak moom sax mu daal di mer mu indi la mer googu ne yaa ma wax nangam yaa ma wax nangam mooy coow li mooy sama mbokk jigéen ñi daal. li ma leen gën a ñaaxaat moo ñu góor góorgóorlu yokk muñ gi nañu muñ jàppale seeni borom kër. lii yàlla na ko suñu borom gaaw jëlee ba ku nekk delluwaat ca activité ku nekk xëy liggéey sa liggéey ku nekk nekkaat ci sa jàmm ndax jaboot jàmm rek ay mbokkam mm-hmm. lu dul jàmm du mbokkam mm-hmm. jaboot jàmm doo ngay mbokkam te jàmm rek lañuy ñaan di ñaan suñu borom jëlee fi lii ci lu gaaw a gaaw a gaaw mm-hmm. man daal damay wax jigéen ñëpp nañu gën a yokk muñ ndax jigéen mooy force jigéen mooy kër su muñee rek lu bari dina sedd lu sa jëkkër tàngal tàngal muñal ndax Covid bi indi na fi loo xamante ne leneen ak leneen man gis naa si ñoo xamante ne dañuy xeex su maa ngoon gu dégg ba ci ndax lan jox ma jox la aw ma indi nangam man dama lan am ba may liggéey dama la daan mottali nangam ba nga nangam nga ne ko waaye yaa ngi koy doog a wax kurpeñ ñi dalante ci Covid bee ko fi indi. bi fi Covid bi am woon new fi woon dañ daan muñalante kon nañ gën a dellu ci muñalante boobu. jigéen ñi dañuy muñ ci muñ lañ leen xamee nañu gën a dellu ci muñ muñal seeni góor ndax am ñu lu dul ñoom ñoom it am ñu lu dul ñun. man daal jigéen ñoom dama leen gën a yokk ñaaxaat rek wax nga li am solo tuuti ba ñu fàttali rek ni yow yaay présidente restauratrice yi euh, ca commune euh, Pikine Ouest ngeen am seen i stratégie yi nga xam ne rek yéen a ngi koy xeexee mbas mi sànq yaa ngi koy wax ngeen ànd seeg seen maire waaye tamit en tant que mère de famille yaay ci biir kër ani nan ngeen euh, fagaro ba mën a xeex mbas mi donte métti na te yéen a ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu bëree bëri yi nga xam ne mbas mi moo leen ko teg ani nan ngeen di fagaroo aar seen njaboot itam. mooy li ma la waxoon rek sunu maire Pape Gorgui luy saabu génnee na ko luy gel génne na ko luy thermoflash génnee na ko luy paan luy raxasukaay luy mouchoir luy gel génne na ko wax dëgg yàlla teg ko ci table bi jox ko ci terrain bi jox ko population Pikine Ouest te boo demoon Pikine Ouest kenn dina la defu ko ndax looy wax nag danga koy xam ku nekk saabu dugg na sa biir kër man boo duggee sama buntu ko da ngay fekk ma teg saabu teg satala teg eau de javel teg gel gel sax ngi ne sama pochette ma yor mhm. tegal sama waa kër gel lu naan xel day fattu may gërëm au no de énargraphes tamit ci ñoom lañu bootu ñuy liggéey ak ñoom ñu ñëw fii ci weeru koor gi indil ñu ndimbal gu am solo ci femme restauratrice yi indil nañu daara alimentaire indil ñu gel indil ñu masque indi ñu ndugal ak lépp indil nañ ñu ko boole ko ñëw déposé ko ci monsieur le maire monsieur le maire yëkkatiwaat une jàppale ko restauratrice yi maraîchage yi ak transformation yi ñu ko ci sant nag bi ko ci gërëm di gërëm waa Enda Graphe si sama kàddu di gërëm fàndooy ak ñi mu àndal ndax jàpp nañ ci nit ki dompat sax ci sot la bokk boo toogee yaakaaroo nga am tey ñu indi la vingt cinq kilo ceeb indi la paanu ndugg indi la dëwlin indi la eau de javel jox la gel jox la masque am na lu ñu la jàppalee sa biir kër ñoom it dañ doon liggéey ñoo xam ne mbas mi laal nañu xëyuñu wàccuñu te ñu ngi toog suñu kër yi xëy na lu ñu dundee métti na ñoom ñu yëkkati seen alal def ko si ñun ànd ak seeni i partenaires dañ leen sant di leen gërëm. wax nga dëgg ndax gis nañ ni itam njiitu réew mi def nañu ay liñ laan assouplissement règle yi nga xam ne jëloon nañ ko. naan nii la ñuy doxalee naa la ñuy doxalee xaw nañ ko wàññi tuuti xaw nañoo wàññi seen loxo waaye mbas mi ba tey jógewu fi yéen ngeen yoroon wàllum jaay lekk nga xam ne moo gënoon sensible tey jii boo leen ubbiwaatoon seen i restaurant mbas mi ne fi ani nan ngeen fas yéene organiser wo rek ba bokk ci jigéen yi nga xam ne ñoom ñooy xeex mbas mi. laaj bu am solo ngi noonu tey jii bu ñu demoon bu ubbiwaatoon ku nekk di nga changé sa doxalin dañu changé suñu doxalin bu baax parce que keroog maa ngi ma amee réunion ak les femmes restauratrices nee naa leen bu koor gi jeexee bu ñu ubbi waatee dañuy changer méthode parce que nag am na loo xamante ne risque bu bëri ci ñun lay ñëw tey ji bëgg naa kii jaay lekk gi bu mu encaissé te xaalis kii jaay lekk gi bu mu am ak kenn nuyoo bu mu am ak kenn leen na ci li muy tibb di ko jaay kii encaissé na am encaissement kii servi ndoxam na am ku muy servi ndoxam nañu teg gel teg savon teg ndox teg lépp li nga xamante ne moo war ci plage bi gën a nag di pomper parce que nag booy dem ci dara dangay ànd ak say arme boo amee say arme xëy na bu la fekk see néew ma du la lodd waaye bala mu laa lodd dina sonn lool il faut que ñu changer méthode yi waaye nag lii nga dugg ci restaurant yoo xamante ne wallaahi doo bëgg sax lekk-lekk ndax nag du ma restaurant ne liñ def yëpp dëgg la déedéet am na sama moroom jigéen yoo xam ne nag dañoo sàggan ñoo sàggan lool seeni doom la ñuy bàyyi ñu de nekk ci plate fu leen neex ñii tanq fii ndox mi naan ñii dugal seen loxo ci ñeex mi ñii dugal seen loxo ci maccaat c'est pas normal dañoo nekk ci feebar boo xamante ne dafa am li ma ci métti nag sénégalais dañuy wax gëmuñu ko amul te gis nga amul googu moo ñuy rey moo ñuy rey feebar bi dafa am nañ gëm ne dafa am gën a fagaruwaat gën a ñaaxaat suñu njaboot gën a téye xale yi ci biir kër gi comme le président Macky Sall di wax fu ñuy def BFEM ñooy jàng sëy yi ba quatrième xaw ma troisième jànguñu nañ loolu ñu tey suñu doom suñu kër waaye président sax te wax na ko da gis da ngay naan jànguñu ñu bàyyi xale ñu dem koñ ba fubali ñu dem koñ ba taxawaalu ji ñëw sa doom dandu ñuul kukk taloo ko wax sangu ji taloo koo wax dara yaa ngi lijjanti leneen looy lijjanti dafa metti liñ daal ni jigéen daal jigéen la jigéen daal mooy lépp te jigéen bu setee rek population set ñun suñu mbokku jigéen ñi nag man jigéen ñi laa àndal waaye dama leen di gën a ñaaxaat ndax nag booy dem ci combat dangay ñaax sa njaboot dama bëgg rek ñu gën a góorgóorlu fas jom xam ne ñun la ñun lay mës di doon. am na euh, solo ndax kat euh, dafa am lenn li nga xam ne rek itam yaa ngi ko doon euh, souligner sànq ci wàllum ñi nga xam ne dañu nekk ci biir restaurant yi mu am xëy na kuy joxe ndox mu am kuy encaissé xaalis souvent dafay ay nit yi nga xam ne amaana moom borom restaurant bi moo leen jël ñu koy xëyal xëy bi fu mu toll nii nërmeelu na ndax mbas mi. ñit mm-hmm. ñooñu amoon yaakaar ci ñoom ndax lim leen doon jox amaana lañ doon sutur ak seen i njaboot. Mm-hmm. tey ji yéen nan ngeen organiser loolu comme seen jànq bàyyi leen noonu ñu xool nan la ñuy def est-ce que yéen itam ci seen biir structure am na ni ngeen xam ne organiser ngeen ko ngir mën a dimbali ñoo ñi nga xam ne amaana euh, dañoo bàyyeeku woon feneen ñëw ci yéen di daan seen doole. waaw ñooñu ñu ngi leen sóoraale parce que ku mel ni man commencé waataguma jaay. Mm-hmm. commencé ma maa jaay parce que ba léegi pandémie baa ngi fi. Mm-hmm. te amuñu fu ñuy jaay suñu buntu kër yi lañu amoon. Mm-hmm. buntu Pikine gis nga ko xool temps yi ñëw Pikine xam ne nekk ci sama buntu kër laa nekkoon di jaay parce que sama baas foofu laa ko monté waaye depuis pandémie ba tey jaayuma waaye sama mbokk jigéen ñi nga xamante ne dañuy jaay jël ay jànq ñoom ñu ngi maintenir seen i jànq mhm. ku si mel ni sama maman Ndeye Diaw mhm. de Pikine Nord président APAS mu ngi maintenir waa këram ay jànqam presque moom dafa am cinq yoo xamante ne ay employé la mhm. ay doomi jàmbur lañ yu ñëw ñu koy liggéeyal mu leen di fay bi de jël kër lëmm nag loger leen fa yor leen ku mel ni moom la ñuy def royukaay parce que moom on a fait tout pour ñoo ñu nekk ci bonne condition kon ñu nit ci moom la ñuy roy parce que mooy suñu présidente ci waa APAS moom bi dañ koy sant di ko gërëm te xam ne ci taxawaay bi mu nekk rafet na ñun ci moom la ñuy roy pour téye maintenir suñuy jànq sànq ñu ngi wax rek ci wàllum euh, xeex mbas mi ba ñu jógee euh, ci jànk itam dañuy dellu ci xale yi lekkool war a euh, tijji ñaari fan ci weeru juin ngeen di ay jigéen ay yaay ndax gis nañ ni mbas mi am na ay njeexital bu baax a baax yi nga xam ne fu mu toll ni jigéen yee ko gën a dékku ani rek lan mooy seen taxawaay ci gone yooyu nga xam ne classe d'examen lañ nekk war a jàngi le deux ndax ñii ñu ngi ne sama doom du jàngi ndax condition yi leerul maag ñii naan sama doom dina jàngi parce que examen la nekk ak yi lan moo ci sa waa li sama xalaat mooy Pape Gorgui Ndong semaine passée dafa convoqué woon le directeur des écoles de Pikine Ouest ñu ñëw ñu waxtaan ak ñoom ci pandémie bi parce que war nañoo tijji directeur yi dem waxtaan seen biir wax li ñu bëgg lépp koo xool réseaux sociaux yi am na Pape Gorgui Ndong def na li mu mën mu def lépp lu mu mën lépp luy lavage lépp luy masque lépp luy gel lépp luy saabu lépp luy pompe boo xamante ne xale yi bu ñu duggee huit heures wàcc treize heures cinq heures am na ko war a ñëw pompe bi pour xale yi bu ñu ñëwaatee suba mu def ko ba démb lañ doon révéler école yi man mi bokk naa ndax man bu paasee restauratrice moo doon présidente euh, des parents d'élèves la bu école de kon am na lu ma ciy dox lu bari moom it mu jàppaleñ ci lu bari ànd ak la coordinateur de Lazare Diédhiou Lazare Diédhiou muy xale bu am yar tamit ànd ak Pape Gorgui Ndong loxoom set lool ak ku mel ni sama frère Ba Jaxate ndax nag ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo commune Pikine bàyyiwuñu dara ànd ak ñu ñu àndal ndax benn kuréel la boo xamante ne dañoo ànd ak góor Gorgui Ndong te fakasta wuñ ko xam ne fii la rek ñu teg fa seen tànk wax dëgg yàlla man de sama xel dal na ci xale yu Pikine dem jàngi parce que lépp lu waat maire def na ko ndax élève bu nekk di nga am cinq masques dañ la jox gel sa biir saak am nañ bërigo yi teg nañ ko ci école yi teg nañ saabu yi te man en tant que président des parents d'élèves chaque matin dinaa xëy dem école vérifier ji parce que man ak école bi soriyaantoo wuñu kon maa ngi ciy gëstu lu ma mën lu ma ci gis moo xamante ne dalul sama xel damay demaat ba ci meer ne ko meer naa nga mag nanga monsieur yi ku nekk am nga trois masques am nga gel am nga savon am nga lépp li war li nga xamante ne mooy tax nga nekk ci bon condition kon dañ leen di ñaanal bu subaa ñu ubbi ci jàmm jàng ci jàmm yàlla defal leen ci jàmm balaa suba sax dañu ñaan yàlla fi feebar bi jóge balaa suba balaa xale dem dañuy ñaan yàlla na fi feebar bi jóge parce que feer bu jóge mooy suñu avantage ñun ñëpp. mooy avantage yu euh, ñëpp waaye itam euh, njeexital gi may wax ci feebar bi rek mooy wàllum économie euh, boobu ba léegi ci la ñuy wax mi nga xam ne rek buñ ne économie dañuy sañ a wax ne jigéen ñi ñoo ko yor ndax kat loo leen jox amaana am na nun ko mën a gérer tey ji xëy yu bëri yàqu te jigéen ku ko xam xam ko ci jaayantu yu sew. bu weesoo liggéey bu mag bu muy liggéey dina bëgg di natt fii lépp rek ngir yokk koomam waaye itam yokk euh, koomu njabootam euh, tey jii jigéen yu bari mënatuñ ko moo xam natt beeg xëy na amaana sama liggéey demeetul noonu mënatumaa natt mu jural leen ay njeextal yu bari bari bari bari coono yu bari yi nga xam ne tey jii ñu ngi koy jànkonteel amaana seen i bëgg-bëgg mënatuñ koo faj te donte ñoom ñoo ko doon fajal seen bopp ñiy dimbali seen waajur itam ci seen ñàkk bopp mënatuñ ko euh, yooyu la métti yi nga xam ne jigéen yaa ngi koy dund est yow mi sentir nga ko ak nan nga mënee analyser situation boobu. waaw sentir naa ko parce que dama am papa am yaay am njaboot war a jàppale sama papa a jàppale sama ma daan jaay di am su ma dajee su ma jaayee 15 jours ma sama bilan génnee sama marché damay dimbali sama papa dimbali sama yaay daal sama njaboot teewul ma bokk samay natt waaye saa mi sama yaay amatuma ko. dama daan jox sama papa amatuma ko waaye nag yàlla yàgg nag jaam te yàlla may nañu ay nit ñu baax. yàlla may nañu ay nit ñu baax lool ñoo xamante ne wax dëgg yàlla commune de Pikine Ouest ci ñoom laa gis solidarité boobu yàlla may na leen loolu dañ lay fekk ba sa biir kër yëkkati li ñu am ñu jox la ko yëkkati li ñu am ñu jox la ko teg ma sàmba du xam ma dem ba du am maire moomu Pape Gorgui day def enveloppe ba mu dund mu xool benn maire xam ne kër gi carrément ñu néew doole lañ mu jox ko benn nit moom sax du dem moom sax du dem man du ma yëg keneen du yëg mu jox ko benn nit ko demal kër nangam soo demee nga jox leen ñun Pikine yàlla moo ñu defal boobu sens gaa pandémie ni metti na de waaye nag ñu kenn ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. dañuy continuer ba tey rek ci wàllum pandémie bi daal di dalal benn gan bi nga xam ne dañ koy jël au téléphone moom économiste la xam-xamam euh, màcc na ci mbir mi nga xam ne rek jigéen yaa ngi koy jànkonteel bu baax a baax Amath euh, Samb Diouf lay wuyoo Amath Samb Diouf nag dañuy waxtaan ak moom ci jafe-jafe yi nga xam ne rek jigéen yaa ngi koy jànkonteel euh, ci biir kër yi rawatina ci wàllum koom ndax kat ñoom ñoo daan mottali jël ak def ci biir cin dundeek njaboot gi waaye tey jii xëy yu bëri nërmeelu jigéen ñi mënatuñ ko métital yi nag daal day gën a tar nan lay jàngatee bile situation Amet Amath Samb Diouf ñu ngi lay nuyu. Euh, leen di fay maa ngi leen ne dalal ak jàmm rek ci Afia FM 93 point 0. waaye di nuyu auditeurs yi di rafetlu mm-hmm. euh, maa ngi xaar laaj bi rek bisimilah. Amath tey jii ñu gis ni rek euh, mbas mi ñëw na amaana am na métital yi nga xam ne jigéen ñi ngi ko doon dund seen biir kër waaye ak mbas mi métital yooyu danoo gën a euh, tar moo xam euh, ci wàllum koom surtout ndax tey jii jigéen bi nga xam ne moo daan daan dooleem di mottali njëlam à la sax du mottali ndax la muy dugal amaana moo ëpp xëy na liñ ko joxoon tey jii xëy yooyu yëpp xëy nërmeelu jigéen yooyu xëy di dund métital ndax amuñu ku leen jox ñoom itam mënalatuñu seen bopp njaboot bi jàngiwuñu ne ci biir kër yi situation boobu rek bëggoon tey jii nga analyser ma ko. waaw dama ne comme ni ko gars yi di waxee parce hmm. que bu ñëwee dafa dal ci suñuy dënn. Hmm. léegi léegi aussi bu ñu bàyyee xel ci suñu koom aussi dafa ñëw fatt suñu koom. Hmm. maanaam ñi nga xam ne dañ daan yëngu di di xëy di dem uti daan doole bu ñu amee ab tuut ñoo delloo ko seen kër. ñoom it dafa dem ba dafa nax taayal seen seen seen liggéey. ndax boo xoolee jigéen ñi ñu ci ëpp dañ daan def. di jënd di jaay. Mm-hmm. te jënd di jaay ko daan defee dañ daan dem ci zone de production yi dem jëndi. Mm-hmm. bu ñu dellu see mooy ci zone de consommation bi yi nga ne ñoo nekk Dakar ñu di dem di jaay. Mm-hmm. léegi nag euh, comme ñun dañ daan yi nga xam ne ñoom bi di dem ci jëndi buñ demee ba dakkal euh, dem ba dëkk bi di jënd dëkk dëkk. donc mooy ni dem ci zone de production yi. donc boo mënul dem ci zone de production yi moo mënatoo am loo jaay. te gannaaw ba yow ci chiffre d'affaires boobu nga xalaatoon jéeg ak tuuti li nga am pour yóbbu sa kër donc dafaa nekk li nga xam ne da koy gàllankoor sa liggéey mm-hmm. waaw donc moom ñoom de ne a considéré ay acteur économique parce que ñoo ñëpp acteur économique lañu te boo xoolee tey man par exemple sama nekkoon ñi ma daan liggéeyoon loolu maanaam ay jigéen yi nga xam ne dañu am seen i tool di mm-hmm. di di bay te ñu ëpp dañu daan def maraîchage wala ceeb mais boo xool su ne bii ñu léegi dañ daan faral di employé ay surga yi nga xam ne dinañ jóg dëkk Saalum yi di ñëw. Mhm. parce que foofu bu ñu doon def récolte métallique bi da daan cher. parce que du leen réalisation bi xëy na koy fay li mu ko fay bu ñu def day cher te rek boo booy xam ëpp mais ñoom ñëpp seen doole yam ñu ay benn hectare la ñu ay ñaari xaaj ci gën gaa bëri ñetti hectare ci juróom léegi dañ doon faral di jël ñi nga xam ne dañuy jógee Saalum ñu sori leen ñoom ñoo doon faral def récolte bi mhm. te jamono jii ñooñu mënuñu ñoom tax ñooñu dañoo préféré bay Saalum parce que euh, oto yi oto yi demul Mm-hmm. te machine bi jotewul pour ñëpp machine jotewul pour te bu demee aussi day gën a avancé ba mu am bu dugg lépp lu dañ koy yàq parce que boo ndox mi dal ci rek ceeb boobu dootuñu mën a récolté day yàq nga li nga xam ne impact bi nga xam ne duñ koy am ci ci bi nga xam ne euh, ñi nga xam ne ñoo am tool mu xam soxna yi nga xam ne dañ am jàppale que ni danañ jël loolu yëpp ñu ngi nekk di ko di ko sentir jamono bi Mm-hmm. donc boo xam ne donc bu jàppee ne fii affaire bu bu xaw a jafe la affaire bu xaw a difficile la. Mm-hmm. te bu weesoo loolu aussi euh, ñi nga xam ne dañ daan faral di am ay parce que béykat yi ñi nga xam ne dañ daan am ay ay ay ay photo ñu def ay rapport inter urbain di yem di dikk aussi dem na ba dafa dafa dafa naxtaay seen liggéey. Mm-hmm. donc loolu yëpp bu dellusee nag problème yooyu yëpp dellu si tegu euh, tegu si kaw fan te te te lekkat naan du du wàcc kenn. ay charge location ci ndoxatuura wala ci kenn mhm. donc bu fekkee sa gabat andi andeetul daa nekk problème donc bu fekkee problème nag euh, léeg-léeg ci tempérament lay li mhm. euh, nga yaay euh, bi da ko dafa dafa dem ba commencé naxkaay dafay dellu si instinct primaire am mooy instinct animal donc su boobaa dafay mer di gaaw a xol bi di bërëb bi gaaw a su boobaa këréel yi commencé génn ci famille bi ñu demee noonu waaw mais nag am na si ñoo xam ne moom damay tooñaale di am na si ñoo xam ne ne par contre dañoo profité di di gën a xam seen borom kër wala borom kër gën xam njaboot yi mm-hmm. parce que am na ñi nga xam ne moom daaw ñu toog dañ daan sooy di dem di ko di dem di di jox seen i njaboot donc sa jigéen nañ daan sooy di ñëw léegi mm-hmm. nag boo xoolee ñooñu am nañu chance de xool nañ seen wetu famille ba ñu ngi saakaa saa saafoon seen ñoom ba ba ba seen borom kër ñu ngi gisaat njaboot bi te ñu ngi ñu ngi doon yërmande ci xam li soxna yi daan daj ci seen yi ndax ñàkkat xale yi ak yooyu ndax yombul te di yar ay xale aussi yombul waaw bisimilah mhm. waaw fu mu ne nii def nga analyse bu pertinent euh, ci situation yi nga xam ne amaana jigéen yu bëri ñu ngi koy dund économiquement alors yan jeexital la war a mën a am euh, ci société bi mu doon benn genre explosion parce que gis nañ ni pandémie bi à la limite c'est mondial mais fii au Sénégal gis nañ ni jigéen ñi ñoo yoroon ménage yu bëri ni nga ko waxee woon sànq alors phénomène bii nga xam ne tey teewee na fi tax na ba ñoom mënatuñu euh, exercer comme il faut euh, seeni métier ba mën a apporter le peu euh, soit peu li ñu doon indi seen biir ménage yi yan njeexital la mën a am ci biir ménage yi waaye itam ci biir société bi. waaw bon njeexital yi ku mën a am ci biir biir ménage yi lay commencé. Mhm. parce que dañ jigéen boo xoolee kër yi nga xam ne dafa am dal. nu ñi nu ñi calme parce que nag am na soxna si kenn di di fédéré ñëpp di boole ñëpp di di di di